ci ko reyee organiser dëj bi woo nit ñi toog di jooyi fekk moo ko rendi bu yàgg xaasim gis nga ko ba mu waree ngénte man li ma bëgg mu leer mooy lu tax ñu retiré xaalis bi nabu moo ko yóbbuwoon woon ban jour la ko yóbbu woon ak yéen heure ñu mën a xam beneen bi ci tegu nag dama bëgg ngeen xam ne Aziz Dabala ñi ko rey ñi ko rey laa la wax de ki rey Aziz Dabala ku ko xam la ay mbokkam ay xaritam ah, ay mbokkam ay xaritam ñu ko jege ñu ko sës xam Aziz dëgg ñoom ñoo ko rey te buñ ko dee rey ci wàllum xaalis lay jóge police bu defee enquête bu baax xaalis bi nuy Aziz di dajale di ko yóbbu màggalu Tuubaa xaalis boobu lan fekk na ay milliards la war a yu takku ñu rey ko pour jël téléphone am recouté web bi wala nangu xaalis bi nekk ci biir rey bi reyu xaalis la alalu àdduna rek mais mënoon nga fee bàyyi Aziz Aziz du milliardaire Aziz daa yor dara koo xam ne day day fecc rëm tam bi tam baaraam bay mburoog boo boo coupé jox la vingt cinq boo dee rey kay dangay ngay rey ko am maanaa ren di ko mën a jël ay milliards